dégg nga mag lañu nañu bàyyi xale yi dégg nga maam ñu des wër réew mi am nañ xam-xam bi jàng nañ ko xale lañ nit da ngay muur kenn du ko naan te muur leen mais da ngay doyal eh quand même vous n'êtes pas des dieux pensez qu'un jour on va vous mettre dans un temple et c'est là que vous allez faire face à Dieu le jour J on n'y croit pas mais ça est là vous êtes des régalé qu'est-ce que vous faites avec les miracles dëgg laay wax te ba trop may dee dee ci dëgg ba dee ragaluma kenn